liggéey bi nga xamante ni moom lañ ñu joxoon nag mooy ñu rapporter li war a bàyyi ci atelier bi ñuy wax atelier 3 mu waroon a wax ci microfinance waroon a wax tamit ci transfert d'argent ay borom yi xam-xam nekk ay expert ci wàllu woowu doon ko doon ko amal bokk na ci ñooñu ñi nga xamante ni wowoon nañ leen ngir doyloo seen xam-xam ku mel ne sëriñ Jibril Gueye def na fi exposé bu am solo waaye bokk na ci ñi ko waroon na teewee ba tey sëriñ Abdoul Ahad Mbacké Jili mi nga xamante ni mooy président commission des finances amoon ngant tax mu délégué kii di sëriñ Abdou Salam Lo commissaire au compte bu Touba ca kanam ñu amoon ñaari intervenant ñi nga xamante ni war nañoo indi seen xam-xam ci wàllu woowu ba tey ñoom ñaar ñëpp seen xam-xam màcc ci wàllu transfert kenn ki ñëw na fi joxe euh, version ci mbir mi li nga xamante ni moom lañ tënk foofu mu nekk euh, sëriñ Abdou Lahad Fall waaye it euh, sëriñ Malick Fall fe fekke woon na jotaay bi moom it def ci ay intervention yu am solo ci biir public bi it am nañ ci ña nga xamante ni wax dëgg yàlla seen xam-xam màcc na ci wàll wi bañ demee ba egg ci laaj it joxe nañ ay contribution yu am solo ci wàll woowu li nga xamante ni moom lañ ñu doon liggéeyloo mooy ñu xool ba xam Touba ci kanam mën na am microfinance ba nga xamante ni moom moo koy moomal boppam nu ko tudde nag moom moo ko tudde waaye ba xam tamit mën na am un système de transfert ba nga xamante ni it moom moo koy moom nu mu ko tudde it moom moo ko tudde loolu bi nga xamante ne def nañ exposé fa njëkk la mbooloo ma wax yëpp mooy dafa jot sax Touba ci kanam am ko ndax benn intérêt la ci moom waaye intérêt la ci mbokki taalibe yi nga xamante ni ñoom ñooy barkeelu ci Touba ca kanam benn ci euh, lu jëm ci microfinance bi ci wàllu euh, jàppale leen ci wàllu liggéey waaye ci lépp la nga xamante ni rek mën na leen a jariñ ci wàllu microfinance microcrédit ak la nga xamante ni moom mooy li jëm ci transfert ñaari wàll yooyu kon lañ doon waxtaan ñu njëkke woon lii nga xamante ne mooy microfinance bi microfinance bi Serigne Jibril Gueye moom moo ko doon moo ko doon leeral ba mu defee exposition moom comme ni mu ko defee fii léegi euh, li nga xamante ni xam nañu ne mënu ci ñàkk te foog tubaa ca kanam fexe see dox mooy lépp la nga xamante ne mooy démarche administrative ñu teel cee jug lépp la nga xamante ni administrativement mooy tax microfinance boobu mën a samp ñu mën cee teel a jug waaye ci loolu ba ñi nga xamante ne ñooy seq liggéey bi danañ ñu présenter wala danañ présenter comité directeur benn chronogramme lenn lu ci nekk ñu wax ñu ban durée lay am bu mën a am bon ndax mu mën a mun a samp li nga xamante ni it moom moo euh, moom lañ ci def comme remarque mooy ñu xam ne microcrédit boobu pour ñu am microfinance bi pour ñu am agrément bi mën na jël temps nekkoon la nga xamante ne luy gaaw lay doon luy jël lay lu jël temps lay doon loolu moom mooy remarque bi nga xamante ni euh, seetlu nañ ko fi leneen li nga xamante ne nag moom mooy étape technique bi loolu am na lu may wax ci suuf lu jëm ci lu ñu war a taxawal ñoom ñooy euh, jàpp ci liggéey boobu bu ñu noppee ñaan comité directeur dajeek moom suñu noppee ñu xool comité directeur lan la ciy décider ñaareelu tomb bi moo nekkoon euh, transfert d'argent boobu dañoo amoon ñaar ba ñetti possibilité ya nga xamante ni jug na fa benn bi njëkk mooy transfert bi am lieson lëkkaloo ak microfinance bi Touba ci kanam war a defar nga xamante ni Touba ca kanam mooy moom microfinance bi moom mooy système moom système de transfert bi boobu li nga xamante ni moom lañ ci euh, noté muy nekk ñaari point yu ci ëpp solo mooy ne microfinance boobu zone de couverture am génnut zone nationale zone nationale dong la mën a couvrir kon da ngay seetlu ne kon jafe-jafe yi ñuy am ca diaspora bi seeni koppar mën a dugg ci biir jafe-jafe yooyu dañ koy wutal kon yeneen solution alternative mais du doon du doon microfinance boobu. li nga xamante ni moom moo jëm ci euh, beneen point bi ñu noté woon ci wàllu transfert boobu mooy it bu fekkee ne dafa war a lëkkaloo ak microfinance bi tubaa ci kanam war a defal kon foog mu xaar nekkul la nga xamante ne lu ñu jug rek def ko la. ndax bala nga koo mën a def comme que microfinance bi la war a àndal foog microfinance bi taxaw te wax nañ leen fële ne leen microfinance bi day jël temps ndax ay réglage da ciy am comme ni ko sëñ Jibril leerale sànq beneen bi nga xamante ni moom mooy euh, euh, ñaareelu solution bi nga xamante ne waxoon nañ ko fa moom it ñu noté woon ci ñaari point mooy micro euh, système de transfert bi lëkkaloo ak benn structure bancaire ba nga xam samp na ba noppi am na agrément te au niveau international danañ ko utiliser euh, ci loolu ñu xalaatoon ne wala boog ñu dëppoo woon ne su loolu amee transfert yi mën a sampu du jël temps ndax day dem rek ay clause lay signé ak banque ba ñu mën a sunu système de transfert mën a mën a wëy waaye ñu gis tamit ne benn avantage mu ngi ci mooy ne Touba ci kanam euh, problème yam doon am ci diaspora bi te ma wax ko léegi bu fekkee ne dañoo jël micro. microfinance bi nga xamante ni zone nationale lay am mën na am dootuñu ko am ndax système de transfert bi day dem ba ci au niveau inter international kon ñi li ñu doon joytu waa diaspora li ñu doon joytu seen transfert yi ñu daan jaarale ci yenn système ñu leen di dagg lu bari su boobaa dootu ci dootu ci mën a am ñaari point yooyu euh, waxoon nañ ko fa amoon na beneen ba nga xamante ne ni soulevé woon nañ ko ci mais boobu euh, li muy wund mooy Touba ci kanam mu am transfert am day bootuwaat ci kenn ka nga xamante ne lëkkaloo na ak banque kon du lëkkaloo ak banque bi directement mais day am kenn ku lëkkaloo ak banque mu dem lëkkaloo waat ak banque kon ñetti solution yooyu euh, yëpp euh, indiwoon nañ ko fi euh, dañ koy proposer nag loolu la atelier bi di def bu ko proposer au comité directeur commité directeur nag mooy toog xool ci ñetti proposition yi ñu leen indil ci wàllu transfert nan la ñuy def ba mu mën a ba mu mën a antu wala boog ban lañ ci ban lañ ciy tànn Euh, ci loolu nag bi ñuy tënk waxtaan bi ndax loolu moo nekkoon waxtaan bi lii mooy li ëpp solo ca lañ fa mënoon a tënke euh, atelier bi dafa dafa dafa sàkku ci Touba ci kanam ñu samp benn comité de pilotage comité boobu am na ay membre yi nga xamante ne jot nañu ci bindu ngir mën a bokk ci biir comité boobu ci ci assistance ba ci ñi nga xamante ne ñooy borom xam-xam ya ak intervenant yi nga xamante ne ñoom ñoo fa ñëwoon nombre bi war a toll ci dix personnes incha allah dinañ ko jébbal comité directeur buñ ko validé incha allah ñoom ñu mën a tàmbali liggéey bi nga xamante ni moom lañ leen ñu mën a wóyal liggéey bi ñu leen santoon. ñaareel bi it ñoom ñuy sàkku comité boobu bu sampoo li muy sàkku mooy ñu wutal leen benn ordre de mission benn mandat mandaté leen pour ñu mën a dem fépp fu ñu fépp fu ñu war a lijjantee ay papier fépp fu ñu war a mën a toppatoowee luy tax ñaar yi mën a sotti bu ñu demee wane papier ñu xam ne Touba ca kanam moom moo leen yebal waaye demuñu rek ngir euh, euh, def lu leen lu leen sopp suñu liggéeyee loolu ba noppi it dañuy sàkku am benn bis ba nga xamante ni loolu ñu liggéey dañuy ñëw présenter ko comité directeur ne leen li ngeen ñu santoon nangam bii la ci def loolu ñu waroon a liggéey nag bépp démarche bu nga xamante ne def nañ ko ca dana ca nekk waaye lépp lu mu laaj ci coût financier yi dinañ leen ko dinañ ko jébbal comité directeur su boobaa ba tey it comité directeur moom mooy xool ndax dana valider lii jàll wala dootu valider lii jàll mais ñoom la ñu co amoon rek mooy dem def seen liggéey mu ñëw bu yàlla dogalee yi yëpp antu comité directeur d' accord ci ñaar yi ñu wax muy ñaari point yooyu d' accord ci seen euh, mise en place lenn kon moom moo ci des te wax nañ ko léegi mooy wut benn prestataire ci côté bi nga xamante ne mooy côté technique bi euh, moom mu gérer loolu ndax benn rek la mën a doon mënut a doon ñu bari te foog ñu am ko ka nga xamante ni lépp la nga xam mooy tax mu dëppoo ak jamono lépp mooy tax ak technologie du ko raw moom mooy gérer yu mel noonu. loolu tamit euh, bu nee ba war caa toll comité directeur moom mooy xool nan la koy sélectionné appel d'offre lay def wala lu muy def ñu indi seen i offre ku nekk ku ci am xam-xam indi sa xam-xam ba nga ci am ñoom ñu def seen dépouillement ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci am xam-xam suñu noppee tënk euh, kañu cay jël liggéey ba mën a tàmbali. kon euh, ci ci gàttal ñaari point yi lañ ca waxtaanoon point bu ci nekk defal nañ résumé bi. defal nañ leen it sàkkuteef bi nga xamante ne moom la atelier bi def ci euh, ñu samp comité de pilotage bu wëyee ñu wutal leen mandat ba nga xamante ne mooy tax seen liggéey mën a wëy kon ñu ngi euh, jéggalu tey sant ak gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah microfinance islamique moom la ñu dëppoo ndax jàpp nañu ne Sénégal fu mel na Touba nag institution financière biy dëppoo ak lislaam moo war a gën a jaadu ñu def ko fi ci wàll yëpp nag ba pare nag mu dëppoo ak fi Sénégal toll ci wàllu exploitation wu finance islamique ci suñu côté yi di xamal leen ni réglementation bi am na lu jafe woon la waaye fii ci huit pays yi ñu bokk UEMOA mën nga fi def financement islamique tegu ci ay yoon yooyu duñ ci dugg waaye am na réglementation bi am na te pays huit pays groupe yëpp ko bokk ñaareel bi Sénégal am na programme mu renforcement de capacité information ak développement finance islamique bu bii di financer boppam ci 47 milliards fii ci Sénégal rek te groupe organisé yëpp yu jëm ci microfinance islamique mën nañ cee bénéficier ñu ne loolu su fekkee am na mbooloo mi am na structuration bi en terme d' organisation à la base am na mu tudd Touba ca kanam ci wàllu. force mobilisation xaalis naka lañ koy wutee gannaaw buñ koy laaj nit ñi du ko joxe gannaaw mën nañu organiser wu ba wuti ko feneen mën naa ne dëppale ko ak lislaam su ñëwee dootul jafe ndax li jëm ci wàllu technique bi ak fi mu war a tegu maye nañ ko man mii rek fii ci Touba développé woon naa fi ay système palam projet public la woon état bi moo ko defoon bid financé ko ñuy def financement islamique ci ay fenêtre ak ay produits yu ndaw donc yaatal gi nga xamante ni mën na nekk léegi war na mën a tax Touba ci kanam nu mu mënti demee suñu jigéen ñi mën nañu yem ci Touba ci kanam ci liggéey mën nañu yem ci Touba ci kanam ci soxla alal ju ñu liggéeyee mën nañu yem ci Touba ci kanam ci suñu ji suñu suñu suñu liggéeyee pare nu ñu koy wesaare. Touba ci kanam jot na fi mu ne ci wàllu woowu ci wàllu microfinance même zakat bi naka lañ koy organiser fii ba nga xamante ni ni muy mën a jariñ nit ñi mën na jaar ci institution bi jariñ ñëpp. naka la ñuy mën a fexee ba nga xamante ñi am doole lool fii seen alal ne ci yeneen institution ñu di ko fa def amaana duñu laal riba mën na ñëw ci seen institution am fa même doole ba pare am fa même objectif dimbali nit ñi ci wàllu psychologique loolu yëpp mi ngi fii gis nanu ko mën naa nekk te du doon concurrence kenn lu tax ndax ku am option wuti alal ci anam classique am nga it. Euh, su la neexee nga dem wuti si alal ci wàllu ci wàllu islamique gannaaw loolu it institution financière bu mën a am islamique li fay nekk ci produit financier du doon lul xereñu nit ñi ak besoin ba ne foofu ñu di ko faj mu dëppook lislaam te loolu da di yoon ci bépp institution financière dañ koy accompagner ak lu ñuy wax comité bu tudd charia board mooy comité bu koy accompagner ci di ko saytu ci lépp lu fay génne ci wàllu alalam lépp lu ñu fay dajale ci wàllu alal naka lañ koy joxe nit ñi ak ni ñu koy delloowe te mu dëppoo ak lislaam te charia boot boobu ñu koy composé ay borom mi xam-xam diine la ñuy doon mënu fi ñàkk ay ñoo xamante ni parce que nag ci fiqul muamalaat la ñu jël ñi nga xamante ni seen xam-xam màcc na ci mbiru finance ñu ñëw di seet naka lañ koy dëppale ak lislaam pour mu dëppoo ak naka la ñuy joxee xaalis bi fii financé ci lépp luy activité économique fii te mën naa nekk beneen bi tam mu am solo lool mooy gannaaw bu amee ñu ko mën a saytu ci wàllu diine gannaaw bi nga xamee ni am na ñu ko mën a saytu ci wàllu xam-xamu service financier dañ koy chaque fois dëppale ak li nga xamante ni nit non seulement moom la lislaam daganal waaye économiquement business euh, modèle économique bi dina ba Touba ci kanam ci wàllu ni mu mën a mobiliser xaalis ci wàllu ni mu mën a structurer xaalis ci wàllu mu nekk ci institution day tax ñu mën a ami feneen nit alal yu gën a takku licite ci gën a bare gën a mën a atteindre objectifu liggéey ci wàllu alal ndax li ñeneen ñi di def di nga ko mën a def te doo leen bokkati yoon doo leen bokkati yoon mooy fonds yi dugg ci institution microfinance islamique dafay xalaal xalaal gi mooy dañuy xam fi mu jóge ndax du jóge ci lenn loo xamante ni lislaam daganalu ko te am na ci dëkk yi ñu wër ëpp ñu doole lool seen zakkaat sax ñu ngi koy commencé di joxe ci yeneen dëkk yoo xam ne du sax dëkku jullit waaye li ñu koy doyee rek mooy suqali doomu aadama te lu mel na Touba ci kanam forme bi am institution bu mel noonu capté yooyu fond du doon lu jafe ba pare dina gën a yokk mu capacité bi ñu am ci ci ci ci alal fii ci ci Touba. ba nga xamante ni du nekkati waxu service financier yëpp benn lañu li nga dem laaj fee moom nga laaj fii ndax dañ koy dégg lool waaye ñun nag dafa am chaque nu ñu koy ñu koy ñu koy waxee. lu dul lislaam bokkul ak leneen lislaam lislaam la di dox ci charia ak sunna te ñi ko jàng xam ko ñu ngi fi. du service financier boo xamante ni da ko jëlee woon ci banque classique yi ñëw di ko di ko di ko di ko jullital di ko tuubal comme tey soo jëloon mbaam xuux mbaam bi ñuy lekk nga fexe ba mu doon tubaab beer mënul nekk même soo ko tuddee mbaam la rek yooyu doon réflexion yoo xamante ne ci Sénégal ci wàllu naka la ñuy defee services financiers yi lu mel ne Touba attan na ko lool ndax bare activité ak yu ñu ci mën a wax lool yu ñu ci mën a wax mooy li nit ñu soxla ci wàllu liggéey li nit ñi soxla ci wàllu jumtukaay sur secteur économique yi fi nekk am institution financière bu wuutee ak yeneen yi dëppoo ak islam nekk Touba mën a tas ci àdduna loolu lu am solo la te lu mën a nekk la wajalilaayi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat